Tiwaawan choix boobu nag dafa nekk choix bu am solo ndaxte Tiwaawan yàgg na organiser ay manifestation manifestation yu mel nii nga xam ne fépp fu Tiwaawan fu ñu koy woowee rek Tiwaawan dafay ñëw répondre présent c'est pourquoi man maa ngi gërëm inspecteur d'académie nga xam ne tey jii dafa tànn Tiwaawan dans la région pour que ñu démarrer les activités sportives li wax rek mooy xale yi na xam ne tey nekku leen si biir classe yi mais yéen a ngi si classe yi ndaxte lépp lu ñu fi wax si affaire citoyenneté si affaire civisme jàng ngeen ko si classe yi mais tey ji leen leen di ñaan ngeen wane ko si terrain bi ngeen wane ko si randonnée bi parce que classe du école rek moom mooy classe mais fépp fu ngeen nekk waa ngeen wane li ngeen jàng te tey ji aussi vraiment kontaan si seen euh, teewaay. may di leen gërëm di leen sant di gërëm encadreur yi di gërëm délégation bi nga xam ne moom moo jógee euh, Thiès mais di gërëm aussi waa Mekhe yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw représenter le département maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne euh, ni ñu ko ni ñu ko commencé nii nañ ko jéggi yegg. c'est pour rendre hommage à toutes ces actions et toutes ces activités qui ont été menées dans ce sens mais également les résultats scolaires que nous nous cessons d'engranger chaque année donc de remercier l'inspecteur d'académie, de remercier le ministère de l'Éducation nationale pour véritablement avoir choisi Tuawan. Je voudrais aussi dire aux élèves, aujourd'hui ils ne sont pas dans les classes, mais ils sont dans les classes. Les classes, ce n'est pas simplement les quatre murs. Les classes, c'est dans la rue. Les classes, c'est au terrain. Si j'en juge par le thème de cette randonnée, le civisme, au service de l'éducation. Nous sommes là dans un terrain de football, mais pour marquer également le civisme, pour montrer notre citoyenneté, parce que c'est ça que nous apprenons à l'école. Donc je voudrais dire aux élèves que ce thème, c'est votre thème. C'est votre thème parce que vous avez l'habitude de l'appliquer dans les classes. Nous voulons maintenant mettre en œuvre ce thème dans tous les compartiments, dans tous les lieux, parce que justement, la citoyenneté, c'est une question sociale extrêmement importante. Je voudrais enfin terminer par remercier les organisateurs de cette rencontre, de cette randonnée, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous allons démarrer les activités sportives aujourd'hui et que la fête soit belle et vive Tuawan. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous sommes assister à l'activité Boumelni. Parce que le sport, et sport, dafa am solo surtout nag ci milieu scolaire bu ngeen seetloo initiative yu mel nii fa mu jóge sama xel mi ngi dem ci le baron Pierre de Coubertin bi nga xam ni c'était un français un historien français qui avait cette initiative mais influencé par les Anglais il a eu l'idée de l'intégrer dans le milieu scolaire loolu mooy histoire li ñuy def tey jii dugal ko ci biir enseignement ci biir école ci biir xale yi kon nag yi ñuy def mooy di leen encourager ci initiative yu mel nii ñu koy fonk parce que dañuy wax ni un esprit sain dans un corps sain sport dafa bokk ci liy dundal doomu aadama surtout ay ndaw donc di leen initier ci sport dès le bas dafa am solo donc loolu ku am initiative bi rek ñun dañu la ciy encouragé su ma xel mi ngi dem ci ñun biñ ci tolloo fii ci Tivaouane ay compétition IASU génne woon fi ay talent en matière de sport yoo xam ni Tivaouane après ils ont fait la fierté de Tivaouane donc lu nekk mi ngi ci biir xale yi kon encadré leen xiirtal leen ci sport lu am solo la ñu ngi koy encouragé en tout cas ñun dans notre politique sportive au niveau de la municipalité de Tivaouane On sera là, on vous accompagnera. Le maire s'est déplacé ce matin en urgence sur Dakar, mais il est au courant de cet événement-là. Minglendi Diapolé, Mingitisen Kanam, comme on vous dit, avec euh, le président de la commission sportive, Gorosek, qui est là, qui sert de trait d'union entre la mairie avec les associations et les activités sportives en général à Donc pour vous dire que vous pouvez compter sur nous, on n'a pas de problème. On est là pour promouvoir le sport, on est là pour promouvoir la santé également de ces jeunes-là. IEF ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Nous rappelons que les phases régionales cette oui. année mhm. seront organisées à Diao. Absolument loolu euh, am na solo phase régionale yi bu ñu ko dee organiser ci biir Tivaouane loolu aussi ndam la pour Tivaouane di ci remercier ñi am initiative boobu euh, ca di ko rafetlu aussi ca bu jotee aussi balaa muy jot sax. ngeen rapproché wu ñu xool ñu nit nan lañ ci mën a jàppe ba nga xam ni yaakaar ji ngeen am pour indi ko Tivaouane du am benn déception loolu am na solo mais IEF may profité je pense que li ma bëgg wax sax mënoon naa ko wax hors hors record parce que ci suba avant may ñëw am na école bu nekk ci frontière départ frontière ci sama buntu kër la ñu jaar ànd ak seen maître di yuuxu slogan boo xam ni ça n'a rien à voir avec ce que vous faites ce de faire donc mélange de genre boo xam ni la il faut que ngeen bàyyi ci xel parce que dangeen di def lu baax il faut pas mu am ay brebis galeuses yu dugg ci biir di ko yàq parce que lii c'est pas politique lii c'est strictement sportif et il faut que mu reste ci ci loolu loolu maa ko gisal sama bët yaa ngi nii taxaw léegi nii rek j'en parlais ak le préfet parce que il faut pas laisser passer ça c'est très important c'est très important ñii ay xale xamuñu dara ci li xew ci àdduna donc il faut pas ñu influencer leen nañ leen encadrer nañ leen yar nañ leen jàngal nañ leen xiirtal ci sport merci beaucoup loolu laa bëggoon